ànd ak fii euh, euh, euh, sama structure bi ñuy wax AIBD SA mu diriger ko pour ñu ñëw indi jumtuwaay yi nga xamante ni chaque gàmmu wala chaque événement religieux dañuy gis ne AIBD SA dans le cadre de la RSE responsabilité sociale l'entreprise dafay ñëw indi lu si mel ni ay ndox lu si mel ni yeneen jumtuwaay yoo xamante ni ñiy ñëw. di euh, assister guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ ko mën a jëfandikoo moo tax tey ñu ñëw vraiment indi suñu appui mais également ñëw ngir euh, sàkku ñaan ci sëriñ bi ndaxte daa am ay mission yu dénk mooy euh, les aéroports du Sénégal te son excellence le président Macky Sall am vision boo xamante ni dafa bëgg dem bi ak dikk bi si biir Sénégal nekk lu yomb moo tax son excellence le président Macky Sall Euh, jox ñu ay instructions pour ñu defaraat les aéroports régionaux